mu un peuple un but une foi peuple bi am na lu muy wax but bi am na lu muy bi am na lu muy wax di nga maanaam boo xamee loolu am sa dignité xam ni Sénégal dëkkul démocratie di nga respecté drapeau Sénégal nekk ci xol di nga nekk nag un citoyen euh, euh, très euh, très sérieux un citoyen lambda ay def lu baax. dégg nga wallaahi mënees na koo wat ni wuy jur yi dañuy góorgóorlu ci njaboot waaye léegi ak coppite moo am. mbàyyi hmm. leen information de euh, désinformation ko gën a wóor fi mu toll ci réew mi. da ngay seet loolu. da ngay tëjoo sa doom ci biir néeg nga di ko yedd lu ne nga di ko wax. Hmm. bu génnee ñu reformer ko maanaam refoural bi xaw ma nu koy wax. ñu reformer ko. def yeneen i jikko ci moom. Hmm. kon ñooñee mënoo leen euh, euh, jubati. dégg nga bu ñu waxee ñu naan way way ngi sonn ci njaboot ñoo war a delloo e seen xel gis nga boo dee doomu jullit dafa am noo war a alal bu mu la jaral sa ngor de wallaahi alal bu mu la jaral sa ngor yow mi war a lekk yow mi ko a lekk xamal na nga koy lekkee fan ko war a teg boo waxee ne xam na ñu nekk foofu ñaari yoon waaye parce que yow yow bor bi ñu kub la jox la xaalis xaalis boobu boo koy lekk moo toll boo xamante ni léegoo léeg nuy wax bu wax nu ni ah lii la ñuy wax dégg nga tey boo ca duggee ñenn ñi ni nii ah nii nii na man de bu fekkoon ni góor ñi ñoom lan wax ni ñoo nekk koo bi tey dinañu dégg ay papa ñaama pisinité koy yu bari danañ ko dégg ndax sama digganteeg ñoom oh, du yomb man sama dëgg gii réew ma ko rusu ma ko fu ma taxaw dëgg ama ko la kenn moomu ma ci waaw waaw day bàyyi bu euh, mel ubbi parenthèse bi wax nga ci lu lu bari wax nga ci lu lu seet sa xol waaye ba dañoo war a tëj parenthèse bi. Hmm. am leneen luñ hmm. ubbiwaat. <laughs> comme bàyyi yaay comme foofu maa ngi noonu. Hmm. ah réew mi ko. ñu nag dañu leen wax dëgg fa gi dañoo jaar ci digg bi rek. waaw waaw noonu noonu moom ko war daan nañ ko defal c'est que am la ñu wax. Eh. waaw kon. kon. waaw lu defee itam li mu amee lu di ko yoon woon. xam nga réew mi lii ko yàq Iran ndaw yàlla ko yàlla defal jàmm. Ah, daa yëkkati kàddu mu ni jamono ji fi mu toll nii da ngay wàcc ba fi nit ñi toll nga waxee ñoom foofu ñu leen di dégg. Hmm. bu ñu defee aw duma da nga leen di wax lu toll ak duma ngir loolu bul dal ci ñoom ñu xam ne nii la dale képp ku ko dégg nga xam ne nii nii nii lu ko defee ñu di ko dégg lu noonu lañ koy waxee amuñu ci luñ ciy nëbb. ok euh, li ma ciy tëjee mooy jigéen ñi nanu xam ne mooy suñu yaay noonu jur. tey bu wàlliwu laay tiit ndax xam naa ne pour mu juddoo ci ci réewum Sénégal mi ce sera un problème très critique loolu ko foog axaar gi dëgg la ndax di doxee nii ah sa waay ñu ngor teggeeku na jot gi bareetu yéen góor ñi fi doon ñu loj ciy tuñal lu ne mu ngi ciy dugg di nga waaw kay ba ca topp mooy jigéen naa taamu naa ca digal angoom balaa na suturaam doy loo am amul jëkkëram kii fe jëfe ñi me lal ëccu dërëm soo bëggee am gërëm lal bu ñuy tànnal ba mu ne ñare da sa jëkkër bu la xëccee doon ni ñare loolu erreur la mooy indi catastrophe njaaloo yi ci biir bi nga hmm. ko te nee naa il faut que ñu xam différence soxna ak jabar di nga ko jabar dalay jabar jombul njaaloo waa ji ko romb mu daal di la woo soxna day sëy te yàlla tax dëkkee di la jox zii di du làmb poosu guddi. Mm. du la indil waxtu waxu guddi. Mm. heure boo ko soxlaa mu fekk la ci sa kaw lii. dëgg la mën bind nag fanweeri tee. Mm. jagleel ko jigéen ñi maanaam tën. wax ma ci ñett wala ñeent ba juróom rek bàyyi. waaw ma ne jigéen war naa taal. waaw tey tabe mën a togg tey ko